femmes ñu ndax see ànd ki nga xamante ne mooy docteur Mouhamadou Moustapha Seck di gynécologue accoucheur au centre de santé Nabi Choucair docteur bonjour. Bonjour Mané. Content de venir sur ce plateau. Non, c'est moi qui vous remercie parce que j'ai l'habitude de dire que les médias pour nous. ah kon bokk ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaye itam am nañ fi keneen ki nga xamante ne mu ngi wuyoo si turu Bintou Kane di journaliste au groupe des médias di fa yor lépp lu jëm si wàllum santé Bintou bonjour. bonjour Mané. na nga maa ngi fi sant yàlla bu baax. mbaa tey euh, thème bi neex na la rek. Euh, parce que dina la soxal trop parce que c'est d'actualité c'est toujours actuel en fait. voilà et puis euh, jigéen ñi dinañ leen soxal bu baax. mais mhm. góor ñi aussi parce que waruñu leen ci exclure. waaw parce que mhm. ñoom ñaar yëpp ñoom ñëpp la soxal sax euh, si loolu la ñuy wax mais balaa ñoo pus si waxtaan bi rek ñu fàttali aux chers internautes que mun ngeen euh, participer si émission bi en appelant sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran xam naa waa régie dinañ ko affiché léegi ngeen mën a woote wala sax ngeen envoyé ñu message bu ko defee docteur ñëw fas seen leen si utal ay tontu góor ñi tam mun ngeen a envoyé ay message ndaxte loolu tamit soxal na leen loolu docteur pour ñu commencer rek euh, ci suñu première question parce que euh, comme ni nga ko xamee email la ñuy waxtaanee mi ndaw mu soxal jigéen ñi soxal góor ñi ñëpp waaye tey jii balaa ñoo xuus rekk day baax nga nañu mhm. expliquer ñu lan mooy ndaw waaw euh, merci ndaw mooy benn membrane membrane comme nan lañ koy waxee ci wolof %e boo xam ni genre :fra rideau :fra la boo xam ni dafay %e tëj ah %e entrée :fra vagin à dire kanamu jigéen fi nga xam ni foofu lay boroom këram di dugg hmm? foofu dafa am lu koy tëj loolu mooy hymen bi moom mooy ndaw bi %hum mais nag ndaw bi %e du ko tëj complètement :fra parce que xam nga jigéen dafa war a gis règle :fra weer wu ne ah donc :fra mu bàyyi benn porox ndol bu tuuti boo xam ni fa lay deretu règle yi di jaar hmm? donc loolu mooy ndaw ndaw boobu nag euh, euh, bu fekkee danga nga am premier rapport :fra sexuel bu fekkee da nga ànd ak sa borom kër boo tëddee ndaw boobu dafay deñ %hum donc :fra léeg mu am metit léeg-léeg mu am %e deret joo xam ne dafay dafay génn à travers :fra ndaw boobu xam naa dinañ ci xuusaat ci si effectivement bi docteur :fra euh, %e à :fra ba nga expliquer :fra lan mooy ndaw est :fra que mën nañoo xam yan différence :fra ndaw moo am waaw am na façon ndaw yu bëri am na peut :fra être presque :fra juróomi façon :fra ndaw %hum am na beneen façon :fra ndaw boo xam ne aussi %e am na solo ñu wax ko %hum parce que façon :fra ndaw boo xam ne dafa yaatu hmm? ba nga xam ni mën nga ànd ak sa borom kër te doo am xam yi ndax métit te doo am voilà :fra voilà :fra donc :fra euh, ndaw %e boo xam ni gis nga boobu moom mooy annulaire bi mhm. waaw mooy bi nga xam ni dafa am benn trou :fra boo xam ne dafa dafa waaw am na boo xam ne euh, dafa am ay %e euh, cribriforme :fra lañ koy wax boo xam ne dafa am ay trous yu sew sewaan yu bëri am na boo xam ni c' :fra est :fra labié boo xam ni dafa am benn %e euh, secteur boo xam ni daf ko diviser en :fra deux hmm. am na boo xam ne nag moom dafa large hmm. moom laa doon wax %e limène :fra bi nga xam ni c' est %e complaisant hmm. léeg-léeg boo ci àndeeg sa jëkkër wala nga ànd ak sa partenaire :fra mën nga bañ a am saignement :fra mën nga bañ a am douleur donc kooku presque euh, juróomi jigéen ñu ne am na kenn koo xam ni am am na genre hymen bu mel noonu donc foo ñu def attention trop bu baax a baax ci ñi nga xam ni dañuy ànd ak seen borom kër musuñu sëy sëy yeewu hmm, ñu xool deret bi ni gisuñu deret ni kii amul ndaw parce que mën na am ndew boo xam ne dafa élastique boo xam ni c'est large d'ailleurs euh, légistes yi ñi nga xam ni ñoom ñooy def loi yooyu ñu il l'appelle l'hymen complaisant d'ailleurs on l'amène l'hymen complaisant du légiste complaisant parce que dafay admettre pénétration bi sa borom kër dugg sa kanam ca doo sañee donc kooku euh, am na ay euh, cas yoo xam ne dañ ko ciy gis. comme ni nga ko waxee dafa am yi nga xamante ne euh, da nga koy am doo sañee am yi nga xamante ni da koy am sañee. bëri na ay mandarga mais tey Bintu en tant que femme. nekk journaliste di dox ci wàllum santé. tey nan nga mën a wax tey si INEN si lu docteur ñëw yeesal léegi. voilà man bu may wax rek euh, tout le temps damay delloowaat laaj bi docteur parce que c'est le spécialiste euh, tout à l'heure gis nañ ni que dafa am type ndaw yu bëri. Hmm. c'est important euh, docteur taxawal ci ñu ci ci bu ci nekk ci ñoom. Hmm. parce que lu am solo maa laaj na ko léegi am na ñoo xam ne euh, dañuy tëdd ak seen jëkkër hmm. mosuñu. am mosuñu xam góor comme mm. nuñ koy waxee ñuy mm-hmm. jéggalu ci yooyu kàddu mm-hmm. mais euh, du pénétration bi dafay nekk pénétration bu yomb mm-hmm. du ñu sañe donc loolu euh, ci imaginaire góor ci li nga foog ne moom la ci li xalaat en tout cas ñoom dañuy jàpp ne kooku du jigéen bu vierge moo tax baax na image yi nga xam ne am nañ ko léegi bu ci nekk rek nga ñëwaat ci parce que baax na aussi yooyu leeral euh, askan bi am ko vraiment pour euh, am une bone information par exemple pour email boobu moom mooy mhm. mel ne bi. Mhm. kooku bu fekkee sa borom kër dugg na bon mën nga imaginer ne mën na sañee donc dafay am métit léeg-léeg aussi euh, hymen annulaire boobu aussi xaw a dëgër dëgëraay boo xam ni sa borom kër mën na dem ci yow euh, ba sonn sa du rompre hmm? surtout bu fekkee hymen bi dafa xaw a dëgër léeg-léeg da am ay ndaw yoo xam ne dañoo xaw a dëgër loolu tax léeg-léeg ñuy yóbbu jigéen ñi ci euh, docteurs yi gynécologue yi wala ci mère yi. pour naan leen dañu am soccet. Mhm. donc loolu léeg-léeg nga koy gis mooy ñi nga xam ne seen pénétration cest à seen ndaw euh, dañuy essayer duggu hmm, seen borom kër day essayer duggu mais du réussir parce que ndaw bi dafay dafay dafay dafay dëgër donc mën na am yeneen façon aussi ñoo xam ni bon euh, xam naa dinañ ci ñëwaat euh, li nga xam ni waruñu ko. Euh, euh, jaawatle ak genre humaine yooyu parce que léeg-léeg sa jëkkër dem ci yow doo mm-hmm. nangu hmm, tout simplement parce que xam nga ni yow peut-être mës nga am foo mësoon a jaar ak ngóor donc yooyu yeneen problème la yeneen problème yoo xam ni dañ koy dugal ci affaire société xam naa dinañ ci ñëwaat ci kanam donc bu fekkee ay euh, humaine yoo xam ne dafa bëri ay point ay trou trou trou yooyu aussi mën nañ supposer ne sëñ bi bu fekkee dafay dugg mën naa am ay jafe-jafe donc pour un peu que rek hymen bi xaw a dëgër tuuti. donc mhm. sëñ bi mën na am ay jafe-jafe. donc euh, loolu pratiquement labier bi aussi. mën na am ay jafe-jafe bu fekkee croison bi nga xam ni moom mooy séparer hymen bi en deux xaw na dëgër tuuti. donc euh, pour nous résumer rek pour euh, tënk rek ci ñaar hmm, am na hymen yoo xam ni facilement sa jëkkër mën na jot ci yow mën na wala sa partenaire wala ki ngay àndal pour la première fois mën na jot ci yow ca euh, du jafe te bu boobaa di nga sañee di nga am aussi métit mais am na yoo xam ni euh, ce sera difficile pour nga nga euh, nga am saignement ce sera difficile pour même sa borom kër dem ba ci biir parce que membrane yi dafay xaw a dëgër donc am na ñoo ci xam ni sax bu fekkee dafa forcé mën na dem ba gaañ ku jigéen ki looloo tax yu mel noonu dañ naan bu fekkee dëgër na yenn dëgëraay yi bul insister yenn insister yi ñëwal ci docteur mu xool carrément ban genre ndaw la hmm? est-ce que hymen bu rigide la am boo xam ni dafa dëgër wala hymen boo xam ni euh, pour ñu pénétrer loolu dafa xaw a jafe donc léeg-léeg dinañ ci gis ñu mel noonu ñoo xam ni dañuy tëdd mais ci ëllëg sa dañuy ñëw consultation mhm. ànd ak seen borom kër wala ànd ak seen bàjjan pour xoolal ko pour ñu xoolal ko ban genre hymen la am. maa ne bëggoon naa laaj tuuti docteur. par ak hymen yi parce que mhm. léegi nii wane nañ fi presque cinq types d'hymen. Euh, hymen yooyu noonu euh, lan mooy euh, particularité yi. ba mhm. jigéen bii di am bii hymen keneen ki am mhm. beneen hymen. et yàlla moo bind ca yemalewul. donc moom mooy décider ni ko neex. ki am façon hymen bii ki am façon hymen bële mais mën na jàpp ni hymen ci boppam en fait euh, juste pour. vestige euh, embryonnaire la quoi c'est-à-dire bi yàlla di defar kanamu jigéen ci la ko ci bàyyi waale mhm. d'ailleurs mammifères yu bëri ay euh, mala yu bëri yoo xam ni dañuy ëmb di wasin mhm. di nàmpal donc dañ koy am seetlu nañ ko du nit ki rek moom moo ko am donc am na ay mammifères ak ay euh, ay mala yoo xam ne ñoom aussi dañuy am hymen. hymen donc docteur pour rester juste si hymen bi tuuti euh, est-ce que tey jii ne benn patiente mun na ñëw avant le mariage mu dem ñëw xool ban façon hymen la am. waaw am na ñu koy def am na ñu koy def donc euh, bu fekkee ñi nga xam ne dañ ko soxal seen aada wala seen euh, seen diine daf ko laaj et cetera parce que am na ñoo xam ne ba léegi ñoo ngi dund loolu affaire humaine yi am na ñoo xam ni nag ñu tubaab yi ñoom ba léegi euh, am na ñoo xam ne dund dundatuñ ko mais am na ñoo xam ne seen tradition surtout yenn yenn làkkat yi ni ñuy wax mhm. wala ñenn ñi nga xam ni franchement dañu gëm yooyu ñoom facilement régulièrement dañuy ñëw ci gynécologue yi ak ci sage-femme yi ñu leen di xoolal soit ñoom seen bopp ñoo ñuy ñëw pour xoolal seen bopp soit ñu ànd ak seen bàjjen wala seen yaay wala seen papa. ah parfait euh, docteur tey jii nii dafa am li nga xamante ne ñun dañ koo sàlloo di di wax ci suñu société muy euh, li nga xamante ne mooy soccet xam naa mm-hmm. bintu xam na bu baax li may parce que mm-hmm. soccet tout le temps boo demee ci mm-hmm. ci dëkk bi dañ bu amee euh, pénétration mu métti wala genre rek dañ naan dafa am soccet après dañuy faral di la yóbbu ci ay euh, ñi nga xamante ñoo ay mère ñu naan dañ koy yatt yu kenn xamul est-ce jii nii soccet cat existe na médicalement. waaw sëcet moom docteur yi lañ ci xamoon moom mooy ay papiyo ma papilloma papilloma virus moom mooy ay donj yu nga xam ni dafay nekk ci sa kanam ca loolu li koy indi moom mooy ay virus c'est-à-dire doomu jàngoro yi nekk sa kanam. Hmm? Hmm. donc lool ñun docteur ñun sage-femme yi ak sage-femme yi aussi loolu lañ daan wax sëcet donc sëcet dafa dem ba finalement ñu xalaate ko neneen mooy. Euh, difficulté jafe-jafe yi nga xam ni sa borom kër dina ko am bu fekkee dafay ànd ak yow pour la première fois ngay doog a tënd ak yow euh, nga tëdd ak euh, yow ku jigéen ki donc jafe-jafe yooyu moom lañ tudd société donc mun ñun mën nañ jàpp que peut-être ay jafe-jafe la yoo xam ni peut-être hymen boo xam ni dafa xaw a dëgër mm-hmm. moom moo koy indi mais mën nañ jàppale aussi léeg-léeg Hmm? ay tappale rek lay doon parce que ko xe euh, ko xam ni yow seet nga ko en consultation mu ñëw ëmb wasin sa kanam koo xam ni ñëw na def avortement koo xam ni ñëw na def yenn yenn yenn GU yi nga xam ni kii mës na ànd ak góor parce que boo mosul ànd ak góor bon peut-être yenn yi euh, ay ëmb ak yooyu mën nga ko bañ am tout en sachant que aussi y des réserves parce que mën nga ànd ak sa euh, borom kër pour la première fois mu nekk ci bunt bi éjaculer c'est-à-dire Euh, jox la manuyu bi ca du dugg carrément ci biir donc léeg-léeg mën na am ay grossesse yoo xam ni du ànd ak euh, mën na ànd ak ndaw boo xam ni ba léegi ma nga fa donc problème yooyu moom mooy réserve bi mais sinon koo xam ne dafa mus a ànd ak ak góor hmm, euh, mu dugg ba ci biir a biir en principe hmm, normalement li ci ëpp laay wax sax ndaw bi dina am ay déchirure yoo xam ne boo demee di nga ko fa fekk donc am na beneen réserve mooy hymen complaisant bi ma doon wax léegi mooy hymen boo xam ni euh, dafa large c'est-à-dire dafa yaatu ba pare élastique donc léeg-léeg sa borom kër bu duggee mën na nga mën nga bañ a saigner comme mën nga bañ a aussi euh, am métit donc ci premier rapport sexuel boobu donc loolu mooy peut-être euh, ay réserve yi nga xam ne mën nañ ko def donc de toute façon bu fekkee indil nañ la ki nga xam ni dafa bëgg a xam ndax wala yow da nga yow mi ko indi da nga bëgg a xam ndax am na ndaw wala déet bu ñëwee dinañ xam ba ban façon ndaw la mm-hmm. bu fekkee hymen large bi la nga xam ni euh, mën na borom këram mën na ko pénétrer sa du sañee dinañ xam bu fekkee koo xam ne aussi mën na mës na sëy dinañ gis ni am na ay déchirure hmm, yoo xam ni dina nekk euh, de part et d'autre ci hymen boo xam ni dafa rompre d'accord